waaw Pape Ndiaye jamono yi mu ngi ca ca cave ba mhm. euh, war a jàkkaarloo bu dee possible na ak procureur euh, bon léegi nag euh, wax fa dëgg yàlla yaakaar nañu daal ci yaakaar ni que comme am na ay ay tànk yi nga xam ne nit ñaa ko ciy dox bon duma ko mën a wax fii mais yaakaar nañ am nañu yaakaar daal ni que bu dee antu na euh, procureur dana gisante ak moom tey euh, voilà ñu convoqué ko à une prochaine date pour audience bu dee antu na laa wax mais wax fa dëgg yàlla euh, am na tamit geneen kàddu gu ma dégg gi nga xam ne xaw na ñagasal tuuti sama sama gis-gis et tout ni que daañ ko def retour de parquet loolu ci yoon bi bi may ñëw Euh, la ma ko nit wax donc euh, mu doon li nga xam ne déjà dañ koy méttitlu lu tout euh, dina rek comme la dernière fois wax fa dëgg yàlla bu dee nag dañu nar a toog journaliste boo waxee dara même bu dee erreur bu ndaw la ci virgule boo juuma fàtte placé wala Euh, verbe wala sujet boo ak euh, phrase boo accordé wul normalement ñu nar la ci toppee ah Pa Matar kon nag yaakaar naa dañuy euh, mujjee tëj micro yi dam damm bi yëpp dem toog quoi parce que finalement sa ça commence vraiment a être dangereux man j'ai vu aujourd'hui très sincèrement j'ai eu j'ai vu euh, beaucoup beaucoup d'avocats qui ont pris connaissance du dossier aujourd'hui mm-hmm. mais ñoom li ñuy wax dañ ne non lii wax fa dëgg yàlla Euh, du du du mbir mi nga xam ne mun nañ ci war a sukkandiku ay yaa wax 19 substitut la te du 19 substitut mais on peut se tromper mais ça nous renvoie également ci kaaw Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang bi IGE e. ak IGF rek ñi bugg ko ñëw def ko un problème d'état mais en tout cas pour tout dire daal euh, Pape Matar euh, bon Pape xam naa ne il est très solide gëm na ne que également voilà euh, euh, li ko dal euh, c' est une chose qui entre dans le cadre naturel de la vie de tout homme de presse. Mmh. mais dama rek dama xalaat rek ni que buñ tolloo ci république bu mel ni Sénégal genre yi war nañ ko mën a éviter quoi waaw mm-hmm. war nañ ko mën a éviter. yaa ngi koy wax léegi lan moo nekk ci dossier bi lan la ñuy toppee réellement Pape Ndiaye. bon li liñ koy toppee réellement nee nañu. diffusion de fausses nouvelles diffusion de fausses nouvelles. outrage à magistrat magistrat. Mm-hmm. bon outrage à magistra bi sax moo gën a jaaxal ñu bari mm-hmm. waaw moo gën a jaaxal ñu bëri parce que dañ ne ba léegi nii euh, définiruñu ci biir audition bi euh, nan la outrager magistra yi bon diffusion de fausse nouvelle bi mooy diffi mooy 19 yooyu 19 substituts yooyu mu wax. ak également nee nañu d'accord ñu loolu daal nañ jàpp ni que division de fausse nouvelle la mais ci wàllu outrage bi ba tey jii euh, boo xoolee PV e bi amul dara dara dara dara li nga xam ne argumenté nañ ko pour wane ni que lii outragé na ci magistrat waaw. Aw Diop euh, tey jii euh, ñi nga xamante ne ñoo ne ci presse bi di def seen liggéey est-ce que jotul euh, quand ñu tiit bu ñu demee ba voilà ci ay mbir yoo xamante ne mën nañ ko tuddee sax ay lapsus ñu la siy jàpp di la di la tuuma di naan ay lu mu tudd ay diffusion de fausses nouvelle di leen nuyu sax ñoom ñooñu waa sûreté urbaine xam naa ne jamono ji ñu ngi déglu ci keppar gi di bàyyi xel bu baax a baax suñuy kàddu di leen wax rek ñoom ñoo baax ñu ñoo bon Euh, bu ñu juumee rek nañ ñu ko jéggal. <laughs> da ngaa jënd glace noonu. bu sedd guy. <laughs> mon dieu euh, Pa euh, je te jure on rigole mais xoolal. Euh, la situation la situation est extrêmement grave Pape man je suis pas d'accord mu jàpp wax ne euh, nu mu tuddati que ñu jàpp kii c'est dans la cour normale de notre. job. Mm-hmm. je suis pas d'accord hein liggéey journaliste ça veut pas dire aller au ñuuf. non j'ai pas dit ça noonu nga wax. non j'ai pas dit ça pour me faire dire ce que j'ai dit. c'est ce que tu as dit j'ai dit que Pape est conscient que. non non waxoo si Pape da nga ne si suñu liggéey journaliste. tout le temps war nañu xaar dem kaso. ma ne la non je suis pas d'accord avec ça. non avec ce régime là mais war nañ ko xaar. non mais warul méngale ne journaliste sa place moom mooy kaso comme que chaque jour sooy wax wala tu dois mettre des gants wala tu dois y aller mollo mollo caresser nit ak yooyu je suis pas d'accord Pa xam nga tey dafa am foo xamante ne presse dafa toll ci réewum Sénégal boo xamante ne dañ ñu doon méngale sax ak li nga xamante ne moo di quatrième pouvoir. Mhm. amoon nañu benn pouvoir boo xamante ne. askan wi fu ay gëtëm àggul woon wala fu ay noppam àggul woon wala fu loxoom ak tànkam àggul woon ñu àggale ko fa ba jox ko ko mu xam li nga xamante ne moom moo xew ci réew hmm. mais tey jii suñu ëlbatikoo ba nga xamante ne taskatu xibaar euh, tey jii looy wax on te surveille comme du lait sur le feu tey jii Papa Ndiaye lan lañ koy toppee loo xamante ne tey jii autant waxuñu ko waxaat ko fi lapsus 17 substitut au lieu de euh, Pape Matar Pape Sané mi ngi koy wax outrage à magistra yan magistra la mhm. tey jii ñu koy laaj li nga xamante ne moo di source am ban source lay joxe loolu ñun ba jàng école ci lu ndaw lañ ñu naan journaliste warul révéler li nga xamante ne moom moo di source am te source bi jógewul lu dul ci groupe googu Pape Matar mhm. tey jii chaque jour nga gis une des journaux bu fekkee ne ab kilifa lañ doon auditionné le lendemain matin parution yëpp audition boobu lay waxee. Ah, mais bi ci gën a garaaw kay bi ci gën a kii mais audition Pape Ndiaye bi moom bi ñu koy toppee ci loolu moom audition mu ci journaux yi. absolument xam nga loolu. yooyu yëpp su amee. te fuite audition moo tax ba ñu dàq capitaine euh, Touré. Touré euh, fële ca gendarmerie ah. nationale mais chaque jour que jëfee suñu auditionné nit si. Euh, juridiction bu mënti doon. soo xëyee suba journaux yi relayer ko. wala avant journaux yi di ko relayer instantanéité li nga xamante ne moo di réseaux sociaux yi ñu relayer ko. Mhm. ñëpp jot ci. Mhm. souvent ah, sax ñu waxal la loo xamante ni du dëgg parce que Pape euh, Ale mi ngi wax ni que li ñu bindoon ci presse bi dinaan euh, le téléphone à parler yooyu yëpp ay kàcc la woon rek dara du ci dëgg c'est que de la manipulation te ñoom ñëpp à tous les niveaux dañuy manipuler mm-hmm. à quelle fin Pa Matar gis nga looloo tax tey jii man bëgguma gis taskatu xibaar buy par parloo ci li nga xamante ne moom moo di liggéeyam tey jii dem nañ ba nasaxal ñu amatuñu baat tey ji li may wax moo di les grands de la presse ñi xamante ne ñoom lañ joxoon yenn oreilles ils nous ont trahi ils ont trahi la profession mm-hmm. ils ont trahi la profession parce que tey ñii pour gain facile jaral na leen ñu rey seen ay doom te loolu la ñu def ak ñun taskatu xibaar yu ndaw yi la jeune génération tey ñoom ñoo ñu waroon baliser ñu ñu seen ay mag baliser woon le terrain tey ñoom baliser wuñ ñu ñoom tey dañoo dugalal ay impasse ba pare ne nongu si euh, kaw li nga xamante ne moom moo di euh, taax yooyu toog fi tey Pa ñoom ñëpp ku ci nekk xeexaloon nañ la ci anam goo xam te ñu ngi la doon toppee te jaarul yoon te allah kulli aal fii ba jant bi di fenk laa la wax nii Papa Ndiaye du mës a joxe source am Papa Ndiaye c'est un grand journaliste Papa Ndiaye xam na bu baax li nga xamante ne moo am te xam nga lan moo ci gën a ñaaw nga nekk journaliste ñu lay mettre en garde naan la tu es dans le viseur des autorités. on te cite des noms. tout le temps on euh, tu es sur le vis euh, dans le viseur des autorités nga defee na loolu lu xel mën a nangu la pamataar ci réew moo xamante ne on nous parle de démocratie on nous parle de liberté tey où la liberté où est la démocratie nañ ko waxante tey jii sooy dox sax tout le temps yaa ngi gestu looy wax yaa ngi xalaat tes parents luñ lañ la wax xoolal fi ngay waxee defal ndànk lii jaru ko lii jaru ko loolu ñu bëgg eh, indi si place publique yi appeler les gens tiital leen ba nga xamante ne dootuñu wax li ñu war a wax Pape Matar mm-hmm. bu fekkee ne loolu rek moo war a mën a prospérer ci réew mi kon ñun ñi nga xamante ne épris de justice ñun ñi nga xamante ne dañoo gëm li nga xamante ne mooy suñu profession yaakaar naa ne tey profession journaliste war nañu dem ba nga xamante ne ni médecin di waatee ni pharmacien di waatee ñun ñëpp ñu am serment boo xamante ne dinañ ko prêter pour sauvegarder cette profession la Pape Matar mm-hmm. parce que li ci am fi mu nekk nii jéggi na dayo jéggi na dayo boo xamante ne tey ji la trahison est tellement grande surtout si suñu ay grand man vraiment j'ai plus les mots te lu dara desul lu dul musée la la su yeboo nga lem say kaaka bàyyi li nga xamante ne moo di liggéey bi dem toogi sa kër parce que bu boobaa jaratoo ñu lay doyee tey jii dañ naan euh, euh, comme Walfadjri yi ni ñu koy tuddee la voix du peuple mm-hmm. tey jii kàddu askan boobu suñ ko bëggee museler su yaboo ñu ñëpp ñu dem toog bàyyi askan wi nekk seen journaliste bopp xam nga keroog toog naa fii ak euh, Moustapha ñuy wax ci benn interview boo xam ne ki ko doon defal keneen ki du journaliste ma ne ko mais waru woon waxee lii mu mais tey ji bu fekkee ne nguur gi mi ngi xeex ñun journaliste yi. bëgg bàyyi euh, place bi ak ñoo xamante ne duñu journaliste. si seen kaw lay këpp ndax dérive yooyu si ñooñu si ñoom lay dal. ñooñu ñoo xamul fu ñuy waxee fu ñu dul waxee fu ñu war a mettre des guillemets fu ñu warul mettre des guillemets fu ñu war a def parenthèse ak fu ñu warul def parenthèse. kon nag ñun ñu ngi toog di seetaan ah fu euh, fu wanante di mujjee ki gëtam. Mhm. nañu xool li ma waxoon de moo di euh, la presse. ah des lendemains très sombres incertains mm-hmm. la ñu nekk euh, di dund jamono ji te Walfadjri ni ma ko waxee moo nekk dans le viseur mm-hmm. doo dégg yeneen du ma lim kenn pour euh, jeter le discrédit du ñu jàpp seen ay taskatu xibaar fi mu nekk c'est les journalistes de Walfadjri qui sont dans le viseur mm-hmm. c'est Walfadjri en tant que tel qui est dans le viseur waaye li may wax rek ku bippee El Hadj bippee nga ku am crédit nee na rappelé à ses côtés def ko muy dara te rappel bu am jom lay rappelé. Mhm, mhm, mhm, en tout cas euh, dinañ ñëw ci euh, li nga xamante ne mooy avenir euh, presse sénégalaise bi parce que gis nañ que semaine yi ay ay quotidiens yu bees yoo xamante ne kenn xamul kan moo ko moom ñu commencé di. Euh, polluer sax nga xamante mooy paysage médiatique bi da ngay gis ni euh, seen une yeeg euh, ay ay quotidien de propagande nañ leen mën a nañ leen mën a tuddee mais laata loolu bu ñuy delluwaat ci li nga xamante ne mooy liberté de la presse ak tey volonté maa ngi koy dégg léegi ci Awa Diop Ndiaye dafa mel ni état du Sénégal dafa affiché benn volonté pour museler li nga xamante ni ay voix discordantes la est-ce que tey Macky Sall contexte bu mu faloo ak fi ko fi ko Sénégalais yi tegoon ak si jamono jooju noonu est-ce que tey moom war na mën a nekk ci logique boobu bu nekkee ci boobu la nekk Pape Sarr waaw mais euh, pam Matar. Kepa man de wax fa dëgg yàlla euh, ni nga ko gisee noonu laa ko gisee dama dama dama j'étais même étonné euh, bi ma gisee en moins d'une semaine sept journaux yu bees génn sept quotidiens yu bees. Euh, et comme tu l'as dit également ay titres yi nga xam ne ak ay une yi nga xam ne mais très tendancieux euh, mais ci ci ci moment boobu ci moment boobu ñuy wax pluralité de la presse euh, bon mun nañ ko rafetlu euh, mun nañ ko rafetlu mais ci moment boobu c'est-à-dire que euh, yooyu ngay wax mais am na ci nga xam ne bés bu nekk bu ñu génnee seen une ñomme lay doon mais pourtant doo mës a dégg ñu woo leen wala ñu ñu ñu joxoñ leen baaraamu tuuma alors tey le drame mooy je crois que le pouvoir a réussi à mettre dans la tête des Sénégalais que dafa am une presse du pouvoir et une presse de l'opposition ci presse de l'opposition bi nag xam naa ne moom Walfadjri moom dañuy jàpp ne ko mooy presse de l'opposition te euh, pour fàttali wax fa dëgg yàlla euh, du ma dem sax ci euh, Abdoulaye Wade Macky Sall mii lan la fi jooyul ak lan la fi amul fii ci Walfadjri lan la fi waxul lan lañ ko ñaat la lañ ko joxul fii micro luñ ko joxul fii ay correspondant luñ ko joxul fii ku ko gunge couvrir ay événement bi muy nekk ci opposition bi donc pour dire euh, grosso modo ni que moom peut-être moo changé moom ak nguuram ñoo changé waaye Walfadjri moom fa mu ne woon démb ba tey mu ngi fi ne bâtiment yi wu ñu xëy na euh, personne euh, physique bi moo cha moo mooy changé mais ba tey ji Walfadjri ligne bi mu nekkee woon ci ligne boobu la nekkee donc tey euh, il revient je dis encore au acteurs de la presse comme ni ko Awa waxee ñu am fulla ak fayda gu mot sëkk xam ne que lii c'est un outil de travail c'est notre outil de travail c'est notre gagne-pain amul benn politicien buy nangu nga ñëw dugg ci ci ci ci seen seen seen kii seen kii woowu seen euh, terreau boobu parce que boo commencé sax ñun ñi sax boo commencé di wax sax ñaan la yow da ngaa bëgg politique su dee da bëgg politique bàyyi liggéey bi kaay politique cest à pour te dire que donc ku ci nekk fa nga nekk yaa ngi koy protéger donc ñun ñoo war a gën a protéger justement ce ce cet outil <coughs> cet outil là et cette profession là gis nga bu ñu ko protégé wul daañu fi xëy benn jour y aura plus de voix discordantes dans ce pays là. Mhm. c'est-à-dire que mooy toute la presse va se résumer à un journalisme de compte rendu mooy que voilà conseil des ministres président nee na lii assemblée nationale nee na ñu lële jam ñaajo inóora gën nañ fa lële. Euh, conseil ministre euh, conseil des ministres décentralisé décentralisé président joxe na fa 400 milliards ainsi de suite ainsi de suite et loolu moom ce n'est pas le travail de la presse xam naa nag bu dee loolu nag mu ngi koy séntu ci Walfadjri ah kon de ñu ne daañu geex parce que euh, yaakaar naa ni que rien c'est-à-dire rien gisuma man luy war a tax euh, cette ligne éditoriale ba nga xam ne on conçoit que c'est une ligne tout à fait juste tout à fait normale parce que depuis des années mu ngi fi bu fi nekkee depuis des années c'est parce que quelque part lu baax la ci askan bi te ñun xooluñu lu baax ci nguur gi xoolu ñu lu arrangé nguur gi lu ñu xool mooy la nga xam ne l' accès à l' information bi nga xam ne mooy liggéeyu taskati xibaar mooy mission pour mu jot jotali ko les populations comme les populations se retrouvent dedans rek je dis macha allah on va continuer à faire notre travail malgré les pressions malgré les intimidations. Mmh, mmh. continuer liggéey bi euh, malgré intimidation yeeg pression yeeg yooyu yëpp mais aussi liggéey bi est-ce que euh, tey ji dina yomb dina yomb def aw jëm Ndiaye vu que déjà kenn mënatul xàmme kenn maa ngi koy wax euh, léegi Pape Sané nee na sat quotidien recensé wu leen mais bëri na jamono ji ay quotidiens yu bëri yoo xamante ni voilà quotidiens yu bëri yoo xamante ni ñëpp xam nañ ni ay ay outils de propagande lañu parfois voilà ay ay ay titres tendancieux loolu tey jii bu mënee am ci presse bi te am ay kuréel taskatu xibaar ñu mel ni yëguñu ko gisuñu ko voilà di di ci opposé benn silence laata ngay tontu question boobu nga nuyuwaaleel ñu Sénégalais yi ñuy suivre ci page bi ak ñu ñuy suivre ci 99 point 0 mais ci YouTube bi ñu ngi toll ci 6163 euh, euh, personnes euh, ni nga ko waxee ñi ci YouTube bi yëpp ñu ngi leen di nuyu ku ci mel ni Diop Alune Tafalo Khadim Lo ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi ñuy suivre ci page YouTube bi ak Sophie Mboup ñu ngi leen di nuyoo ñoom ñëpp mais Pamatar. xam nga li ni dafa commencé di prospérer dañu bàyyi ñoo xamante ne ñu ñëw euh, infesté li nga xamante ne moo di la profession te mi ngi tàmbali depuis Abdoulaye Wade parce que les politiciens ont compris li nga xamante ne moo di dooley média ñoom ñu commencé investir la profession en quoi faisant di taxawal li nga xamante ne moo di seeni quotidien temps wu Abdoulaye Wade gis nañu il est midi ci la juddu ak yeneen yeneeni journaux Pamatar ak li nga xamante ne moo di ay télévision même ak ay rajo dem nañu ba euh, président Macky Sall mi à son temps également amoon na li nga xamante ne moom moo di ab rajo ak ab quotidien n'est-ce pas mm-hmm. yooyu yëpp ñu nemmeeku muy am et ñun ñi nga xamante ne ñoom ñoo ŋànk suñuy profession ils n'ont pas su dire non dañu bàyyi mu jàll defe ne peut-être que euh, gangrène bi du àgg fenn fi mais tey gangrène bi dafa àgg ba nga xamante ne amputé ci cër googu fa la ñu toll su ma moytuwul sax ni amputé nañu ñaari tànk yi bay àgg ci mbagg yi te tey jii ñan ñoo yore suñu kuréel yi nga xamante ne ñoom ñoo war a xeexal li nga xamante ne la di la profession pamatar correct tey jii moom mooy suñu gendarme moom moo war a arbitrer par rapport au cas Pape Ndiaye est-ce que ñoom saisir nañu correct ndax defoon naa ne simple saisir nu correct waroon naa doy pour li nga xamante ne moo di kaawu Pape Ndiaye waruñu ci sax la la lëmas li nga xamante ne moo di wàllu yoon tey jii ban kuréel moo fi taxawaat moo di Synpics Synpics tey wax ma yan rédaction ngay dem yoo xamante ne dañu syndiqué yan rédaction ngay dem yoo xamante ne tey am nañu sañ-sañ yëy yàbbi ci seen nekkin ak seen doxalin parce que tey ñi nga xamante ne ñoo dul journaliste Pa Matar ñoom ñoo infesté li nga xamante ne moo di les rédaction ñooñu loo leen fay ñu jël ndax lan la ñuy ut ab siiw ñu ngi leen di dégg mën nañu intégrer milieu politique bi mun nañu intégrer état bi ak ñi ni mel laamiso ak ñi nga xamante ne dañu leen jàpp soi-disant des kilifa ñooñu loo leen jox ñu dem loo leen jox ñu kii duñ ci xool éthique duñ ci xool morale duñ ci xool déontologie pamata nag loolu nag su amee ci métier yàgg naa ko fi wax nee naa la métier bi fi mu nekk naax saay na wala sax ci rédaction ba noppi di conseil ay politique mi ngi noonu. moo tax ma ne la tey jii ñi nekk suñu biir. ne infesté le milieu. tey ñin ñoo ñu war a arbitrer bu fekkee ne tey jii soo demee biir Synpics ñan ñoo war a arbitrer dem ci euh, rédaction yi. xool ñan ñoo ci am ay syndicat ba nga xamante ne yenn dénonciation dinañ ko def mais benn dénonciation amatul ci li nga xamante ne moo di rédaction yi parce que ñi ci nekk ñi ci bëri dootuñu ay taskatu xibaar les vrais journalistes Pape Matar tey ji déserté nañu les rédactions dem nekk si seen yëfu bopp yore wàllu communication yi ni mel ndax xam nañu ne presse bi léegi soo ci nekkee dañ lay doyadal mhm. dañ lay ñàqal fayda da ngay nekk am éthique ak déontologie nga gis dans une rédaction ñu gis xale yoo xamante ne amuñu éthique amuñu déontologie sa kaw parce que lan am nañu benn apport bu ñu amal patron bi te ces patrons là c'est pas des journalistes mhm. xamante ne éthique boobu ñoom tamit dañ koy mbubboo tey presse yi nga xamante ne ñu ngi juddu mhm. Pa Matar boo ci dem des politiciens ñoom ñoo ko moom parce que xamante ne euh, presse am na ko maa ngi leen wax moo doon quatrième pouvoir mais quatrième pouvoir boobu tey dootul loolu parce que pouvoir yëpp ba mëdd na leen Mmh. pouvoir politique bi mëdd na leen mëdd bu métti boo xamante ne ndax lan appât du gain xaalis mmh. Pape Matar le nerf de la guerre mëdd na ñëpp ñi nga xamante ne ñoo di day ta vrai taskatu xibaar yi da nga leen di compter sur le bout des doigts Pape Matar tey jii mmh, kon tey jii ñu ngay dégg ñoom ñooy génn de ñu dul journaliste di xas journaliste yi nga naan journaliste yi seen biir juboowuñu ñi leen di xas duñu ay journaliste pamata soo xoolee ba xool duñu ay journaliste feneen lañ jógee ñu ñëw tëmbal leen ci li nga xamante ne moo di milieu bi loolu nag bu fekkee ne les vrais journalistes mun nañ continuer di ko muñ ces corps yi ñuy teg pour aar li nga xamante ne moo di suñu corporation mun nañ continuer di ko mun wa ilal li nu golo xam boo tee doomam ñi nga xamante ne dem nañ ba mënatuñ cee mu ñu lenn nag ñu génn dem defi leneen mais nag c'est baliser la voie à la corruption à la traîtrise à tous les maux qui gangrènent cette société la mm-hmm. parce Sané euh, ni mu ko waxee tey jii bu demee ba yooyu yëpp nekk fii mu am ba tey ñoo xamante ni euh, bëgg nañ def seen liggéey correctement ku ci mel ni euh, Pape Ndiaye mais buñ koy def ñu leen di tegal ay ay ndëgg sërëx ak yenn yenn jafe-jafe est-ce que finalement du ñu dem ba mujj leen décourager parce que aussi ku nekk am nga famille boo moytul li ñuy mujj mooy famille bi poussé la nga abandonné nga dem ci yenn activité yoo xamante ni dootul nekk activité bi nga xamante ni moo nekkoon sa profession. effectivement Pape Matar nga may ma nuyu imam Cheikh Aminta Liberté 6 euh, camp pénal euh, mais xam nga Pape Matar xam nga le drame mooy ñun ñëpp c'est-à-dire booy génn sa en fait le c'est-à-dire c'est c'est tellement xoolal booy génn lañ lay yebee mooy mooy c'est-à-dire man c'est la première fois ma ne dans un pays nit di génn di liggéey ñu naan la moytu. dëgg la de c'est-à-dire yow damoo sàcc ji damoo agressé damoo jaay yàmbaa damoo dafi lu bon damoo taxawaalu mais ñaan la noo moytul moytul xam cest à c'est extrêmement grave dans Euh, bu ñu eggee à ce niveau euh, beneen affaire bi mooy euh, comme je l'ai dit tantôt mooy que actuellement dafa mel ni dañu bëgg demande au aux journalistes ñu nekk des de des des hommes parfaits mais ne alors que ñun éléments yi ñuy traiter tous les jours mooy que ce soit dans l'administration que ce soit la politique que ce soit la magistrature mais ñooñu ils sont loin d'être des modèles de perfection kon nag ñun comme matière bi ñuy traiter parfairul ñun on peut pas nous demander d'être parce que gis nga lii ngay gis ni Pape Pape Matar ci ay peut-être ay erreurs yu ndaw parce que je considère que cette sortie de Pape euh, Pape Ndiaye c'est c'est c'est juste une une une une, une lapsus cest à mais danga koy gis bés bu nekk ci yeneen démembrement ci yeneen corporation yi mm-hmm. mais tey encore une fois dañu singaler une certaine presse c'est-à-dire il faut qu'on le dise mm-hmm. parce que lii Pape Ndiaye wax mais am na ku fi toog fii jamal Diagne pour ne pas le nommer ci dossier Adji Sarr Sonko bi mais il a dit que y a des magistrats qui préféré se désister parce que ci wàllu affaire wu xeet la ak affaire waaso moo tax ñu ñu ñu désister ci dossier bi mais attends où, où, où étaient ces magistrats là mm -hmm. où étaient ces magistrats là mm-hmm. le procureur de la République à l'époque dëgg la fii nañu toog Adji def na fi sorti ci euh, ban ban ban euh, en tout cas benn organe euh, français ni mm-hmm. que magistrat yi dañuy ragal Ousmane Sonko voilà nii dañu dañu ragal Ousmane Sonko ma ne ko waxuñu dara moo gën a touché euh, seen dignité que kaddu yi nga xamante ne mais Pape Matar oui Pape Sané dagguma la bu fekkee ne tey jii dañu ne euh, magistra yi ñoo réunir woon ñoom it neen la kenn raxu leen bu fekkee ne ñoom dañoo am euh, devoir de réserve mais si biti mun nañoo génn wax lu leen naqari wax ut ku leen ko waxal loolu yàgg na si réew mm-hmm. conseil des ministres danaan am balaa ñoo pare simila ak sala am na ku génnee wax euh, ab journaliste boo xam ne xaritam la wax ko li waxe woon yëpp mu gaawantu génn ba nga xamante ne président ci boppam mu gi da doon toog na ne ministre yi bàyyi leen senn bi mhm. loolu yàggul pamatar démb la donc tey pourquoi se lever tey jii topp Pape Ndiaye naan ko say source li nga wax lii ak lee ak lële nañu xool ñoom si seen biir pourquoi le mal est si profond ba ñoom amuñu sañ-sañ waxal ko seen bopp dañuy wax par procuration. ñu waxal leen te à supposer que sax erreur am erratum nañ doon def ci presse. mais Pape Matar li ma wax sànq moo di ne correct mi ngi fi. bu fekkee ne loolu amul nga yónnee wal fajir ne na rectifier. absolument wala na jéggalu. c'est vrai c'était tout simple. Mhm. mais quand nag en amont yàgg nga dégg ñu naan journaliste sàngam ñi ngi ci ay tànkam journaliste sàngam ñu ngi ay tànkam. lii su amee warul bett kenn. mais loolu moo dul lu normal nag. toog ba nga xamante ne les journalistes ont peur chaque jour ñu naan leen ñi ngi say tànk say njaboot topp la naan la moytul bul waxee nii ñii tolleewuñu nii waxeewuñu nii. man mhm. am na ñoo xamante ne Pape wallahi azim dañu dem ba sama yaay naan ko neel awa bu mu waxee nii xam nga ñii su ñu nekkoon ci république bu normal c'est vrai su waxee amul problème mais nekkul ci république li ngay waxee mun nga Pape Sall mën na la ko yeggali ma mën naa la ko yeggali li ñuy wax moom euh, kàddu yi ñuy jox moom ñu ñëpp ko dañuy dañuy yëpp ko ñu koy ba pare Pape Matar nous mhm. on subit des menaces mhm. quand soo demee porter plainte fan lay mujj fenn fenn. Mhm. Pape Mat eh, Pape Sané ngi nii ñaata message de yoo xamante ne ay menaces la yu ma envoyé woon ma envoyé ko Pape Sané. dëgg la mais après da ngay tayal nga ne pourquoi aller porter plainte. dëgg la soo porter presse également quoi est-ce que daf leen di euh, soñ si li ñuy def. ñoom kay dañ koy ndamoo. waaw dañ koy ndamoo. Mhm. mais comme je dis rek ku ñuy tëkku nga tiit. gëmatoo yàlla fii yàlla dong nga fi nekk pamataar mhm. yàlla nekk ci kaw moo nekk ci suuf moo nekk gauche moo nekk droite ku kor euh, ku euh, ñeme yàlla nag ragal ñooñu mhm. yow a dëgg la man de tànk yàlla may may kàttan mhm. di ma may bii mhm. li nga xamante ne moo nekk sama conscience jàpp ne nag heurtewu ma doomu aadama tooñu ma mbindeef loo xamante ne c'est pour la bonne marché de ce pays là oui je vais ba yàlla tudd leneen ak leneen bu fekkee ne dem naa ba munatuma ko wa ilal li xaam ma bàyyi ñeneen ñoo xamante ne war nañ koo mën. Mhm. ma defi leneen. yaa ngi koy wax Madiambal euh, defoon na fi aussi beneen beneen mbir euh, c'est Madiambal Léry euh, toogoon na fi jaxase ni que habillement bi député bi soloon joxoon ko beneen connotation. Mhm. mais moom dafa demaat fi mu ko waxee woon rek excusez wu. jéggul mu jeex voilà kenn topp ko. et pourquoi ñeneen ñi duñ leen permettre même même même même même même mbir yi. même procédé yi voilà. waaw mais mooy mooy mooy li may wax Pape Matar mooy que ñoom dans leur viseur. ñoom dafa am ña nga xam ne xoolal keroog keroog dafa am doom benn waay bi ma yónnee photo bi sax dama dama ma koy saaga sax teyu ma ko quoi. Mm-hmm. mu ne ma de nee na ma deux mille vingt et dama fi génni woon benn photo ne les quatre papes mu ne ma léegi ñaari paa bi. jot nañ leen a jàpp pare waaw mu ne ma léegi yow Pape Matar. ma ne ko man Papa laa tudd génne leen ma seen ma ne ko génne leen ma seen paa bi. <laughs> <laughs> mon oncle mon oncle nag. Eh. ah man Papa laa ah? laa tudd ah? ma ne ko génne leen ma seen mais cest tu imagines un peu ah cest dans dans situation de psychose. ba nga xam ne mais Pape Makhtar mais heureusement que heureusement je dis encore heureusement. Eh. que yàlla may nañu d' abord un une éducation ba nga xam ne euh, macha allah ñu ngi sant suñuy waajur. également am na tamit am na am nañu conviction c'est-à-dire le plus important. man c' est ce que je dis parce que pression bi nga xam ne lay nit ñi di subir fii à ah, Walf c' pas pour nous victimiser. Mhm. mais pression bi Pape Makhtar je suis sûr que bu doon ci beneen groupe la am na ñu bëri dootuñu xëyiti quoi. Mhm. mais bon je dis encore fois. je dis nous rendons grâce à nos parents nous rendons grâce également aux responsables euh, de Walfadjri parce que tamit ñoo ñooñu musuñu déroger justement sur cette ligne et sur la conduite à tenir euh, par rapport justement au personnel de Walf loolu moo ñu tax a taxaw moo ñu may ba tey jii ñu continuer di mun a def suñu liggéey convenablement